mbokk yi dalee na jàmm ci li yéene kaay xëyee ci samedi bi fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2020 dañu koy doore ak journal bii di Les Échos yéenekaay bi di Les ko di delsi ci plainte bi nga xamante ni Cheikh Oumar Anne teg na ko ci ndoddu journaliste bi di Pape Alé Niang waaye nag kii di Cheikh Oumar Anne yemul foofu teg na plainte itamit kii di Mody Niang yéenekaay bi di Les Échos di ñu xamal ni kii di Maître la Hadji Diouf nee na Pape Alé Niang dafa nekk ab nitu politique goo xam ni dafa taxaw ci lu dul dëgg ak itamit ëlbati xelu nit ñi kii di Maître Baboucar Cissé mel ni ku koy feelu daal di wax ni li yëpp lenn ko tax a jóg moom mooy xeex ab régime seen jigéen di Maître Fatoumata Sall leen fekk si wax ni lu ëpp ci téere bile amul daraay luy wone rapport bu OFNAC avocat yu Cheikh Oumar Anne di jëwriñ bi ñu denk wàllu njàng mu kawe mi ni ki démb lañ doon jano ak taskatu xibaar yi kii di Cheikh Oumar Anne nag ñu ngi fàttali ni ñu ngi koy joxoñ baaram tuumam ay njuuj njaak yoo xamante ne mu ngi ko defoon ci jamono yi muy nekk njiital kudd ay awokaam nag fu mu toll ni taxaw ne nu temm ngir jàmmarloo ak Pape Alé moo di Niang waaye tamit Nafi Ngom Keïta te sax audience bi ñu ngi ko dëgmal fukki fan ci weeru mars bii di ñëw njëkk bu journal enquête ñu ngi wax ci wàllub financement ñel terrorisme direction des investigations criminelles di waa DIC daal dinañoo teg ci ñett nit yu kawee ci mbir mi journal l'enquête moo ñu koy xamal kenn ku nekkoon ambassadeur bu Sierra Leone ab professeur d'université bu Sierra Leone ak i tamit ab ndawu Sénégal ci association mondial bi nga xam ni moom mooy association mondiale pour l'appel islamique ñoom ñooñee ñëpp daal dinañ leen teg loxo defeere ca parquet bu Mbour dañ doon nag jéem a génn réew mi ak ñeent xamante ni déclaré wu nu ko ca di wax ni lañ fa gis yëpp wane na ni financement bile mu ngi ñaloon wàllub terrorisme yéenekaay bi di l'enquête di ci gën a xuus ci ñetteelu paasam Dakar Times di desandi yi tamit ci wàllu wàllub terrorisme di laajte ndax wahhabisme moom moo waral li nga xam ne moom moo xew ci wàllub terrorisme ci àdduna bi ñoom nag ñu amal ci ab jàngat gu yaatu ci biir yéenekaay bi yéenekaay bi di l'enquête di desandi ci procès boobu nga xam ne teg nañu ko ci ndodd Pape Alé journal bi daal wax ni ñiy layal Cheikh Oumar Anne fu mu toll ni xeex bi tàmbali nañ ko ci wàllub communication ndax nag atum 2015 ba léegi benn plainte déposé wu ñu ko woon ngir tontu OFNAC bi nga xam ne dafa tegoon loxo ki fi nekkoon directeur bu kudd waaye nag bi téere bu journaliste bi di pap Alé Niang génnee ba léegi coow li ne cour fayatul ñiy layal Cheikh Oumar Anne ñoom nee nañu dañoo bëgg setal deru jëwriñ bi ci kanamul yoon ci xëtam bu njëkk journal bi di 24 heures di ñu wax ci ndaw googu ñu Fatick ak la xewoon ca ba ñu koy jébbal boromam yéenekaay ñu xamal ni ay député yu nekk ci mouvance présidentielle bi tuute tere woon ñu teg leen loo xam ne duñu ko fàtte abadan daayiman xibaar boobu nga xamante ne nag lu bari ci taskatu xibaar yi daal dinañ ka joxe ñenn ci ay nit daal dinañ koy weddi nee nañu li nga xam ne moom la yenn ci ay këru taskatu xibaar daal di wax ci mbir mi dara du ci dëgg ñu wax ci Guy Marius Sagna ba tey ci 24 heures kii di maître Moussa Sarr dafa mer ba futtu gannaaw kàddu yi nga xam ne Philippe Lalio daal dina ko wax ci mbir mi maître Moussa Sarr moom nee na ki nga xam ne moom mooy ambassadeur a dañ ko yemloo amul droit benn yoon di dugg ci loo xamante ni mu ngi ñël beneen réew nee na nag ki nga xam ne moom mooy ambassadeur bu France moom balaa moo wax ci réew Sénégal na wax ba noppi ci jafe-jafe yi nga xam ne am na ci biir réewam yéenekaay bii di tribune di ñëw ci xëtam bu njëkk ci jafe yi nga xam ne am na ci wàllum njàng meeg njàngale mi wàllub yoon wàllub mbay mi naka noonu pétrole ak gaz yéenekaay bi di ñu wax ni Macky moom mu ngi ci péage bi nga xamante ni ay jafe-jafe kese moo fa nekk si yéenekaay bi sax ñu ngi won naataalu njiitu réew mi mu wone ginnaaw bi mel ni ku jaaxle journal bii di critique ñoom nag nee nañu ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall dafa quarantaine maître Abdoulaye Wade ñoom nag ñu daal di wax ci seen xët bu njëkk ni maître Wade jël na coronavirus kii di maître Abdoulaye Wade nekkoon fi président de la république génn gi mu génn di wax ci ñu daal di indi waat étudiants yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca Chine nekk na génn gu doy waar ndax nag maître Wade ak président Macky Sall bu nu fàttalikoo juboo woon nañu ca Masalikul Jinaan journal bi bii di critique di wax ni nag génn gi nga xamante ne secrétaire général bu PDS daal dina ko génn doonul loo xamante ne neen la ndax nag ba mu demee seeti njiitu réew mi ca pale ba léegi yàgg na mu mel ni kon ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca pale de la république seeni rumbanaat tàmm na di am lu mu juur ñu jàll ci beneen yéenekaay di Sud Quotidien Sud Quotidien ñoom daal di ñëw ci génn gi nga xam ne maire yu commune yi daal dinañ ko génn ci proposition statut particulier bi ñuy wax fan yi ngir ville bu Ndakaaru Aminata Mbengue Ndiaye lañu xëyee ñàkk kii di Cheikh Gueye di maire bu jëppal Derklé daal di wax ni mënu comprendre benn yoon ñuy daal di dellu gannaaw ak statut bu ndakaaru bile santé añ seen di maire bu commune bu Liberté nee na nag lu tax rek ñu war a yemale bile proposition ci ndakaaru boobu jamono Mouhamed Djibril Wade bu mairie bu Biscuiterie nee na nag saa ñu demee ba nar tànn ki nga xam ne moom mooy jiite diwaanu ndakaaru xañ nañu askan wi seenu yeleefu tànn kaleen doy dañuy desandi ak ki nga ñëw na ci delloo njukkal ban fas yéene delloo njukkal Ousmane Tanor Dieng week-end bii di ñëw Aminata Mbengue Ndiaye nee na nag dafa bëgg a ñëpp di sol ay yére yu weex ñu daal wax ci wàllu tàggat yaram stade le quotidien du sport daal di ñëw nag ci seen xët gu njëkk ci match diggante Norwich ak Liverpool bu 17h30 jotee nekki tey journal bi di ñu xamal ni dellu si gu mag gi nga xam ne saajo nax na ko am balaa Atlético Red si nag ñoom dañoo bëgg ab ñaar fukk ak juróomeelu succès ci ñaar fukk ak juróom benn match xamal la xew ci arène yu Sénégal ci xëtam bu njëkk sunu làmb di ñu xamal ni juróom-ñeenti fukki million ngir booy ñaam téeméer ak fanweeri million ngir Balla Gaye ñuy laajte nag ndax kii di jamaïcain mën na naan li nga xamante ne bëgg na ko sombi laata nag ñuy am tontu gi fii la ñuy yemale li yéene kaay di leen jaajëfal jàmm ak jàmm